dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaaru yu wér te leen ngir dara bañ leen raw jàngeen jëf mbokku internet info 221 ñu fas yéene daal di wëy ci xibaar yi niki tey ji ci altine bi yemoo ko fukki fan ak benn ci weeru nag euh, mars 2024 dañu koy dóoree ak fitna yi jot am niki démb euh, diggante nag ñi féete ci euh, kii di Bassirou Diomaye Faye ak ñi féete ci Amadou Ba fitna yooyu sax ma nga amee ca Parcelles ni ay oto yoo xam ne dañ ko lakk ñu bëri am ci ay gaañu gaañu yu métti sax ñu daal di si teg lu bëri nag ab loxo bilan sax affrontement yooyu daal di dara wutaleeg partisan farando Ousmane euh, kii di Bassirou Diomaye Faye ak ki nga xamante ne rek moo di Amadou Ba ni ki dimanche bi la woon fale ca Parcelles Assainies ñaari camp yooyu nag ñi ngi doon circuler ci zone cadre euh, campagne ngir rek daal di amal campagne électorale bi nga xamante ne daal dinañ ko tàmbali ci dimanche bi xeex yooyu sax nag nekk bataille rangée ci côté Amadou Ba ak ñi fiti euh, ci Bassirou Diomaye Faye loole nag juru jafe-jafe goo xamante ne askan wi sax ñi ngi koy ñaawlu ba tax nag yu bëri ci askan wi bokk na ay woto yu ñu taal waaye tamit ñu bëri ci ñoom ñoo xamante ne jot nañ ci am ay gaañu gaañ ci noonu gis nañ nag euh, daal di ci noonu garde du corps yi nga xamante ne ñoo doon euh, garde quartier général bu euh, ba Amadou Ba nag jot nañ ci nag daal di teg loxo kenn waaye tamit am na kenn ku ca gaañu jëm rek ci ba yuuxoo ci turu Ousmane Sonko loolu rek moo daal di indi fitna a yooyee mbir mi nag beneen daal di amaat benn woto bisu ligne 37 nag moom lañu ñu di agressé ka nga xamante ne rek moo di chauffeur bi nag bu 13h jotee ba toftal fanweeri simili ginnaaw caravane bu doon am nag jóge ci VDN 3 bi engagé wu nag ci ñaari voie wi jóge foofu nag wuti ci Cambérène direction nag terrain ak APS nag ginnaaw bañ fa egsi ci université 7 nag patriote yi nag daal dinañ addu rek réclamer rek ñii di Benno Bokk Yaakaar ci ancien ministre bi léegi di Amadou Ba fitna yooyu nag moo jur ah, lu nu mel ñu bañ leen a fàttali rek ni ah, coow lii dana am jamono jooje nag benn ah, bus nag ngeen baal ma bi bis boo xamante ne ay defkatu ñaawteef ñoo ko attaqué euh, muy ligne 37 bi ba daal di noppi faat nag ki nga xamante ne mooy chauffeur bi waaye nag kii di receveur bi dañ ko titanisé dañ ko fitnal chauffeur bi sa euh, tata euh, dafa daal di sax na mujj ñàkk kanam ginnaaw gaañu gaañu métti yi nga xamante ne jot nañ ko daal di ci guddi samedi bi jàpp dimanche bi victime bi nag mi ngi wuyoo si turu Mayekoor Ndiaye nekk officier ak officier la woon ci ligne 37 moo ko doon dawal diggante ak sa Malika Tiwaawoon pël foofee nag ay defkatu ñaawteef daal di ko attaqué ba mu taxawee woon jot nañ ko gaañ yooyu sax ñoo ko mujj faat nag receveur bi nag moom dañ ko tiital ba tax nag lépp lañ yoroon nag jot na leen ko jébbal mu doon mbir goo xamante ni jéggi na dayoo ay énervé nag appétit du chauffeur yi malfaiteurs yi doon nañu yor seeni arme nag ngir mun ko daal di attaqué moo mel ne nag jamono ji Sénégal kaaraange ñàkk na fi lool rawatina nag ci nit ñi VDN bi nag nañ ci indi ab saafara rawatina askan nañuy sàkku